commerçant ya nekkee ca centre commercial soxna Asta Walo Mbacké ca Padoua daal nañu amaloon ab sitting ci talaata gi ngir nakarlu supermarché bi nga xamante ni moom lañ fa taxawal te mu nekk loo xamante ni nee nañ jaarul yoon. lii yëpp defoon nañ ko ci këyit mu nekk contrat bu leer nañ ñu xëy rek gis promoteur ba nga xam ne démb moo nekkoon suñu euh, suñu partenaire léegi mu mën a ñëw nekk suñu suñu wujj ndax li mu nekkee suñu wujj mooy bu xëyee tey ñun ñëpp ñun ñu dugal ñu si biir biir marché bi nee na amu leen droit génn jaay si biti mu indi koo xam ne moo ñu ëpp doole fuuf bu ko neexee mu dem fu ko neex jël fa marché indi marchandise indi yow moom yow bu mu li marchandise bi muy ñëw indi mënoo ko am léegi nag mu ne ko yow jaayal ci biti yéen toog leen fi ngeen toogoon rek ci biir mooy yéen dootu leen jaay loolu mooy suñ problème suñu problème bi yëpp loolu la te kooku amu ci droit. ginnaaw ba ñu xam leen ni boobule supermarché méngoowul ak li nga xamante ni moom la ñu waxtaanee woon ñu ngi ñaan autorité yi ngir ñu daal di réagir. léegi nag loolu ci luñ bëgg nag autorité yi ca kaw ba ci suuf ñu dimbale ñu ñun nag ki ñu gën a jaaxal ba gën ñu jaaxal ba gën ñu baaxal mooy suñu yaay ji nga xam ne moo ñu waroon boot rogarti ñu kooku moo ñu seetaan mooy maire. parce que maire lii mënul àgg fii te maire nekk yëgu ko ce n'est pas possible parce que képp ku fi am dossier bu ni bu mus am mu ngi foofu ci bureau maire. ubbiteeg boobu les supermarché nekk loo xamante ni commerçant yi nakarlu nañ ko lool ba tax na li ñuy xamle mooy fas yéene wu ñoo bàyyi benn yoon loolee jàll te ñuy ñaan autorité yi ngir ñu daal di si réagir.